سعد من في सधु मन पीत लाऊं झूना पसर हज़न हज़न पसर पसर भॼ पुरा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 di Mbour TV tabaarakallaahu di len ci ziyaara di jital ci nuyo bi directeur bi ak mboolem personnel bi yep ñi ngi len di ndokale di len ziar di nuyu tabaarakallaahu ñi nga xamna ñom ñoy ñuy baye xel di ñu top jamono june di ñu seetaan ñi ngi ziar yi di nuyu doomu soxna yi di balu ak kilifa diina yi kilifa aada yi tabaarakallaahu mi ngi non ñëw nañ ci yéen nak ci yenen benen plateau ak yu gam gannaaw bañ ci jugee tay ñi ngi indi nak cheikh Seydil hadji Maalik radiyallahu anhu téréem boobu nga xam ne bind ko moom dong waaye bari na lu mu bind ñu yëpp ñu bari yëguñu ko wala ñu bari sax tabaarakallaa yaakaar nañ Maodo xilaatu xam rek la bind waaye la li dal Busiri yu ci téere bi moo dal Seex Seydi El Hadj ci téereem bi xam nga Busiri yu du burdu rek la bind ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yonent bi moo ni mel moo tax maa di wax yéen ñi bëgg am lu ngeen siiwal gaaw leen ànd ak Mbour TV ci li ngeen di publicité mu gaaw ndax lu yonent bi bokk mu siiw xoolal Busiri yu wayul yonent bi dong waaye téere bi baxru bi mu ka woyee muy basit moo yéeme ndax nit boo kay woy na mu tol nga koy woyee tabaarakallaahu nit it boo kay woo niveau bu garaatam ba am léeg nga dégg son excellence di nga dégg camarade di nga dégg directeur maanaam nit ku ne dara jaam nga koy woowee di nga dégg oustaz di nga dégg sayda di nga dégg nit cër ba ka yàlla jox nangul ko ko moo tax Cheikh Sidil Hadji Malick téere bii di xilaasu zahab fii siirati xayril arab muy téere bu yéeme boo xam ne. waaw la ko ubbee waaw la ko tëjee ñetti waaw moo séq téere bi bi ci njëkk mooy wa innahu is arada allahu bi ci digg bi wa fil hadisi bi mujj bi war na xamaamata dund yonent bi jeex lépp rasulullahi seex seydil xaaj maalik indi ko ci xilaasu zahab ñuy participer ci gàmm gi ak benn buntu mu nekk suñu yóbbal ci télévision bu mag bi di Mbour TV muy lan tey maa ngi jël benn bunt boo xam ne bunt bu metti la bunt boo xam ne Seex Seydi El Hadji Malick dong mooñ ci dimbali moo ñu ci leeralal ci mbaaxam ak ci xam-xamam ba tey ku ko dégg bàyyi xel ni nekkate yoo lislaam bi daj na lii muy lan bi lislaam néewee doole muy lan bi lislaam mettee muy lan bi jullit ñi néewee muy lan bi doole amagulee eggoon nañ ci kuy wax laa ilaaha illallaah da ngay làqatu eggoon nañ ci kuy wax allahu akbar da ngay làqatu da ngay tey la neex kum neex nga takk rajo wax lu la neex billahi alladi la ilaha illa huwa eggoon nañ ci jullit ñi ku ciy julli da ngay làqutu daaru abi arqam dem nañ ba am ñaar fukki nit ñi ma wuñoo génn di julli ku wax laa ilaha illallah mbaa ñu nga ànd nga ak rasulullah yi keroog nga dem ba sax gaa yi di dee tey ànd ak nabi ndax moom doo nga mat a àndal moo tax dama lay wax ni booy dee deewal ci dëgg booy ragal ragalal yàlla booy gëm-gëmal yàlla booy wóolu wóolul yàlla yàlla doo nga mat a àndal laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim kenn amul kàttanu dafa dindi kudul borom bi subhaanahu wa taala yow mi di seetaan maa ngi lay bàyyi loo xel ne la lii ma lay wax ci lislaam bi daj nañ ko lislaam bi Seex Sidi El Hadji Maalik nee na dem nañ ba am fan weeri nit ñi ma wuñoo génn nañ ba am ñaar ak juróom ñi génn dem nañ ba am fanweer ak juróom-ñett génn dem nañ ba am fanweeri nit ak juróom-ñeent ñi ma wuñoo génn ndax mettital gu ñu di mettital kiñ ci njëkk a jigéen la muy tabaarakallaahu Sumayya jàng nañ ko ñu ñëpp ci histoire tey nag l'islam metti na ba yonent bi tàllal na loxo di ñaanal yàlla di ñaan yàlla ndimbal allahu akbar lan la ñaan yàlla allahumma ayidil islaami bi ahadi omar yi yàlla ñaari omar yii ne ci yéefar yi mën ci jaasi lool di jàmbaar lool xarañ lool maa ngi lay ñaan l'islam bii nga ne inda diina inda allahi islam yow yaa ne yàlla yow yàlla yaa ne l'islam mooy dëgg l'islam mooy li wér l'islam mooy li mooy li nga gërëm maa ngi lay ñaan ñaar ñii tànn ci ñoom ñaar kenn dugal ko ci lislaam ndax lislaam bi am doole allahu akbar xam nga ni booba metti na ñaan gi dal ci kaw Omar bun Xataab histoire bii nag Seydi Hadj Malick moo ñu ko nettali ci xilaasu dahab keroog bi ñaan gi dalee ci Omar Omar yéene mooy tey bala maa fu jant so dinaa rey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seydi Hadj Malick nee na keroog bi bi. gaa yi nekkoon di làqatu biñ ñee koo kan la bi mu nee mën a Omar jàkk ji daa riir ku ne dana ay waay tey mu ñaaw de booba Omar moo mën ci jaasi jàmbaar na ta lu wax dana ko def waaye ki ni ci lu yàlla bind moo ci gën muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog la leen rasulullah yi ne leen bu leen daw bu leen jàq dëgg mën neen te lislaam may dëgg Omar daal bu ñu ubbee bunt bu dee jàmm la bëgg fii la dëkk jàmm ndax al islam ñu ngi ko tëgg ci baatu salaam muy jàmm bu dee ay la bëggit fii la dëkk bi Omar ne kàccit bunt bi romb rasulullah seydil bachar wa alami shuhudi yonent bi raful yënguwul ah sama waaja moo dàq ñëpp gën ñëpp rasulullahi Seex Sidi Alhaji Maalik nee na keroog la Omar tourné jàkkaarloog sang bi sang bi na ko Omar looy ut Omar na ko ñaar doo ma indi yaa ne ci dëgg wala gaa yi ci biti ñoo ne ci dëgg bu dee yaa ne ci dëgg ma fekk si la ci ñu tëji bunt bi génn bu dee ni yi ne ci dëgg ma bàyyi la fi ànd ak gaa dal ci sa kaw nabi na ko boo deg li lii dëgg tey dëgg lislaam ay dëgg Omar ne ko ku bëgg a ànd ak yow lu muy wax mu ne nga dem sangu ñu wat la wax ashhadu an laa ilaha illa allah Seex Sidi Hajji ne tes halimam ne man mi la woon yaa xaayisal baxi man malik Fawad maa lay wax Omar ñaata personne la fekk ci biir gaay yi Omar bi mu duggee nombre bi génn ñaata la ndax kero génn nañ ñu ne laaji Maalik bindal maami sëriñ Maodo Seck sëñ Bay Abdu mu ne wa innahum xaraju min baadi kawnihimi zujulan wa kaana shihabu diini darami wa bi nabi aslama alfaaruq sëy sëñ Xaj Maalik nee li gëna graw moy bimu amé li dal wa Màkka waxna la nombre bi dina la ko firi léegi waxna la nombre bi wax la ñaata lañ wax la biñu ñu li xew ñi ci bitit la leen dal man malik fa wax xamna ko ñu ne Sidi Hadj Malick bindal mu ne wa dal na wa Màkka wa zara zullun wa xusunun ya uqiya quraishiya ma yazanun an al amra zulwazemi seex Sidi Hadj Malick Cheikh Hadj Malick nee wa innahum nekk gaa yooyu nekkoon ci xunt bi di tu ndax néew xare joo génn nañu kañ si mu ne min baadi kaw ni himu sujulan sujul racine sept la jim trois yow mi seetaan sept ak trois ñaata la dix lam trente trente plus dix égale quarante mu ne racine sept jim trois sept trois dix dix ak trente quarante mu ne bi ñuy génn quarante personnes lañ Seex Sidi El Hadji Maalik كان مولين كني من هو بنبي نيل سيدنا محمد اسلم الفاروق دينك فاروق موتاخ الاسلام سيو كربي عمر سانغو ني واتكو نبي نانكو دوغال تانيو تاج تبي بي عمر نكو لو جار لاقاتو بودي داغي كونتيناي لاقاتو مان عمر رسنا ليك تي نوني لاقاتو نغاي كينو في كين تخاو في ني اسكورتا كا جوليت ني يور سيكوريتي تبي دي واخ لا اله الا الله تاكاو دي واخ اكبر تاكاو اوتي كابا جي لوخو بوجوك مان عمر ما تشور te Omar moo tax yàlla fayul départ arrivé lay fay yëg nga ni Omar njalbeenam eggoon na ci mas na suul doomam bu jigéen moo tax yow mi baax bul naagu yow mi bon it bul découragé yàlla mi ngi bërëf mi ngi gaawantu nan gaaw leen tuub tuub du wees qul tustaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursil sama aleykum midraara loo nekk ci lu bon soobu rek na yàlla ñëw naa boo dégg tee noor jugal yow mi ne yow mi ne ci ci caaxaan boo déggatee ni lu baax am na màggal jot na loo jàppoon ba ko dem Touba mbaa nga jël sa ñàkk yóbbante Touba dem siyaare ji Serigne Touba ndax moom lim am rasulullaay moo ko may yow mi ne dangaa bëgg yonent bi fu la gàmm fekk boo mënee demal boo mënul koñ ba nga dëkk jàkk ba ñuy jànge burdu toggal yóbbu toggal yóbbu fa ñuy defee lu baax dem fa jullit daal fañ ka tere mooy fi ngor nanguwul diina nanguwu ko nangulu ñu jullit dem fa waaye fu ngor ne baax dëgg na fa may nañ ab jullit mu dem fa Seex Sidil Haaji Maalik nag téeréem bii ñuy jàng guddi gàmm gu jot nga xam ne léegi nekkatul gàmm gu jot su bés bu ne foo romb tant yaa ngi riir guddi gu jot samedi yi ñu ngi gàmm dimanche yi ñu ngi gàmm altine ngi gàmm téere bi lépp rasulullah Sidil Haaji Maalik bind na ko ci xoolal rek xoolal rek xoolal histoire bii Omar bun du gëm ci lislaam Sidi Haj Malik nettalee ko nii wax la nombre bi mu fekk ci biir jàkka ji wax la bi mu duggee ñaata lañ wax la kañ lañu génn ne nag li dal sax gaa yi xam naa leen ndax dañoo yokku yaakaaroon ne lislaam du sori moo tax yow mi may seetaan maa ngi lay wax ni saa yoo tàmbalee lu baax ami noon boo gaaw a découragé doo egg jullit du découragé jullit chaque jour am na chance pour dem yàlla bañ ta may ki tëdd waaye ki taxaw ak a jaaxal sëriñ kër Si moo doon wax naan sabab lu leen te bañ a sukkandiku yëngu ya nit day tàmbali lu baax mbaax nag saa yoo ko tàmbalee coono gane si na yëg nga ni Serigne Touba Touba gii ñu koy fekk du cosaanam Mbàkke Kajoor mooy cosaanam Sidina Limaamu mii fii ci euh, maam Cheikh Abdoulahi Thiaw euh, yal na yàlla yàggal ko fi keroog bi mu feeñee ay mbokkam dañ kaa xatal mu ñëw ne dàq géej gi dëkk Cheikh Sidil Hadj Malick ni yi la juddoo fan la ñuy gàmmoo. ci Tiwaawoon Serigne Touba Mbàkke la gane àdduna fan la ñuy euh, màggale Touba kon loo cay déggee saa yoon nekkee ci mbaax bul tayal bul découragé del déglu tey jéggale tey jëllale yonent tubi li tax mu réussir l'islam bii keroog ba mu njëkkee taxaw di julli Cheikh Sidi Hadj Malick nee na dañ ko doon reetaan. يغنى لول كيروك بيم جوغي ليله الاسراء والمعراج وفي زك خط خلى من شهر مولدي تسري حاج مالك نينا لا لان ديمي كو يونتو بي تاخاوي دي جولي جبريل جيتيكو موي جولي وا ماكا دون ريتان بيم سمالي مونا يالا man ma tambali ñi di re yalla nako bes dana ñew ñi di la re par ken la waye bes dina ñew l'islam bi egg ci ay milliards yalla nako dina la dimbali bes dina ñew nga gis yaay gisal sa bop iza jaa نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا groupe par groupe ñooy daanu alquran yaa ngi ponkal moo ci dégg mu weddi woon yonent bi bu defee recherche rek buy retourné tuub koo déggoon mu xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ba ci caricature yi ñu caricature woon yonent bi dañoo dañoo yokk affaire yi ndax bari na koo xam ne ba mu gisee ñu caricature waa ji jullit ñi yëngu am na ñu def recherche te ku recherche yonent bi daj ko te ku ko daj tuub سرين توبا نينا فلا تقيسوا ابن عبد الله بالفضلاء سرين توبا نينا بوي لي مباخ رك ديو دا باخ رك شيخ الخديم نينا بو ايغي تي يونتي بي تاخوال مو كن نيب سيد البشر وعالم الشهودي شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه خم خم بو ري بوب مقام بو ري بوب واي تير بو ري بوب دي خلاف ذهب موتاخ شيخ سعد ابي با موي تاغ على مالك من مدارسه في العلم خير المدارس من خم خم دال xam-xam rek jàngal jàngale ci xaj Malick Diène bi nee naa la ay góor yàlla ni ñoom ñoo ko seedee yëg nga ni Cheikh na Cheikh Saad bu moo wax ci làmmeñam te Cheikh na Cheikh Saad bu doomu Cheikh Mouhamadou Fadal Chérif xaqal la góor yàlla biir la deretu yonantu bi la moom moo def seede bi ci Seydi El Hadj Malick moo ne madaarisuhu fil ilmi xayrul madaris nee na école ci jàng ak jàngale xam-xam kenn dajul mawdu allahu akbar keroog biñ ko tàggee Baye Balla Coro dane te hëddama ruknu diin Baye Balla Coro mi daa bokk ak Mamoor Anta Sali mu jur Cheikhil Khadim dafa wax ni El Hadj Malick faatu na ñu ne waaw mu ne te hëddama ruknu diin ponk diine bee bi téewoon l'islam daanu na tey Serigne Aline Gueye keroog bañ ko tàggee Seydi El Hadj vingt 1922 le 27 juin mardi la Cheikh Hadj Malick génn dem Barzakh Serigne Aline Gueye dafa tiim Cheikh Hadj Malick jël xalimaam ne du ma jooyee rongoñ damay joye xam-xam ndax xam-xam dem tay ñu ne sëñ Alioune Guèye ki dem kan la mu ne sulaymanu Amrin musa wiin bi nejjeti halil yu diini sunniyin li Muhammadi mu ne bo bëggee xam ki tudd tay ragal yàlla yun tellu sulayman Cheikh Sidi El Hadj malik ndar kep na ragal yàlla yun tellu musa El Hadj malik ndar kep na ragal yàlla yun tellu Ibrahim Cheikh El Hadj malik ndar kep na ko sunniyin li Muhammadi bo bëggee xam ku sunna yonent bi piir bii ku raxul dara yonent bi jàppal alaaji maali lu yonent bi bañ Maodo bañ na ko yëg nga ni ku nuroog yonent bi la alayhi salaatu wasalaam ndax baayu yonent bi di Abdullahi bi muy faatu Aminatoo ngi denc leer ci yonent ba mam deux mois Ousmane mi jur Maodo bi muy faatu faa wàdde welee ngi ëmb a Cheikh Alhaaj Malick ba am deux mois Seydina Aboubakirin Sadiq mooy premier xalifa rasulullahi Serigne Babacar si mooy premier xalifa Cheikh Alhaaj Malick si loo ci déggee Cheikh Sidi El Hadj Malick góor yàlla biir la xam-xamam boobu nag téereem boobu di xilaatu zahab mu jël ci yitte daan ci jàngale fiq mantiq usul bayan aawu naxwu mbooleem luy téere mag ñi foo ma saanu jóge Maodo téere la la daan jàngale téere dundam yépp téere la mu waxoon nag benn yitte dong laa am man Cheikh Sidi Hadj Malick ñu ne ko ban yitte mu ne benn dong mooy sama yitte ñu ne Maodo ban yitte amoo bés mu ne déedéet. amoo bés bu ñu lay ziyaara mu ne déedéet jaru ko moo Maodo ban bés lañ lay màggal mu ne jaru ko benn bés dong laa am. wa laysa lii amalun alxaaka ya amali siwa almahabbati wa taadimi bés bi ma am mooy bés bii Mbour TV ànd ak yéen di ko waaj muy bésu gàmmu gi man daal képp ku ne woon amoon nga yéene màggal ma bàyyi maa màggal lenn doo nga may defal mooy màggalal ma juddug yonent bi yëgoon na juddug yonent bi Seex Sidi Hajji Maalik nee na mooy feet su fii suruurin fii suruurin feet bi dàq ci feet yi mooy juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon da man da boo yow mi may seetaan da nga ma naan Cheikh Hajji Maalik dundam yëpp daal rasulullah yi la koy dox moo tax tabaarakallaahu xam-xamam bu rëy ba kenn xamuloon nu mu toll Seex Seydi Hajji Maalik boo ma saan liir bindam foo jaar yëg gor yàlla pire pire ndax xam-xam ba ci walu grammaire ci walu nahwu ci walu mantiq du bàyyi dara dara dara taw wallahi khilas siwret mais ruy zaman boko lire mba nuniya mba kifayatu raghibin nga xamni cheikh Sidi hadj malik école la won école la won bo xamne ne musta musta dajale Maodo da son da don décentraliser yeneen plateau yi dina li limal muqaddam yi ko mu mës a defar rek. yëg ne kooku fees na mu xool dëkk ba tumuraanke xam-xam ndax am réew du dem jàng des gannaaw moo tax yitteem yëpp daara rek la taal Seex Sidil Hajj Malik daraan boo mësaana indi ndékki li ci daara ji lay ne di jàngale ba waxtu añ wi indi añ bi mu jël añ bi ci kaw ndékki li di jàngal mag ñi ak mën a jógee nag téere boo mën a indi boo ñëwee fekk fa Seex Sidil Hajj Malik radiyallahu anhu xormaam eggoon na ci boo mësaana nekk kilifa ut si xam-xam sax am na lu ñu tudde woon póotum guddi mi ñenn ci doomu soxna yi moo tax mag ñi dañoo baaxoon gis nga mag ñi musuñu rëy kenn ku ne la nga yëg ni sa morom moo la karawe nangul nga ko daw uti ko fa tabaarakallaahu kon kuy jullit bëgg yenoon tubi mbaa nga ne bëgg nga seex si Alxaaji Maalik sa alluwe bu ko wéer daara mi ngi commencé jàng mi ngi commencé ci ba berso mi ngi jeexee ci kuusu bàmmeel nit foo ne foo toll jàng du wàcc ci kenn koo yëg ni moo la raw demal jëy jëli ko loolu nag yonent bi la ci roy yonent bi moo ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yonent bi moo ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor ak bu jigéen farata nag foo ko déggee mooy devoir individuel lu la kenn mënta defal lu la war la jullit du toog rek jullit dafa war a jàng yàlla moo wax ci alquran fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun yàlla nee na yéen ñi xamul bu ngeen demee bay déglu mbaa bu ngeen demee bay laaj ku leen laaj n'importe qui xool leen ñi xam ngeen laaj leen lax laxdari yu wax ni wa yaxramu alayhi an yafala fi alam xatta yaalam hukma allahi fiihi nee na day araam ci jullit muy def te xamul dara muy tâtonner xaraam na it nit di def loo xam ne xamu ko xataa sa julli ib nee na iblis mës na fekk ci bi ci buntu jàkka ji yonent bi ne iblis sooy def ci buntu jàkka ji mu ne ko damaa bëgg a dugg ci biir jàkka ji yàqal kii julli julleem waaye damaa ragal ki tëdd yi nelaw allahu akbar yonent bi ne ko kii di julli kii di nelaw mu ne ko gis nga kii di julli jàngul farata jàngul sunna mënul faatiha mënul taaya xamul farata julli xamul sujjóot xamul baada salaam xamul xabla day këpp këpp rek waaye kii tëdd géej gu fees dell téere yi d'accord ne kon nelawi borom xam-xam moo gënal yàlla jaamu ko xamul diine kenn du ko ne l'islam bi kenn du ko tat eh, def nu la neexe ay charte la yàlla yonent bi la ñu royloo yonent bi baat bi ñëkk a wàcc ci moom mooy iqra jàngal à l'âge de 40 ans yu may six mois ñu ne ko iqra kon foo mën a toll jàng du la wàcc Sidi xaj Malick nag jël dundam yépp def ko ci daara bind xilaasu dahab fii sire tahil arab way ko ci baxru bu yéeme mu ngi noonu gàmmu gaa ngoog buur diwee ngoog oustaz Ismaïla Sène ngoog ñii lañ koy jàpp ak yéen rek di leen jox rendez-vous ci yenn plateau ci beneen mag mag mu ne dinañ fekk fa nga ne ñu wax ci yow incha allah ndax télé bi télé askan wi la ku jub jub ci wax ji yàlla la lu dëng ñun la ñu ngi nuyu ñëpp borom xam-xam yi doomu soxna yi di ñaanal yàlla xalifa général yal na yàlla yàggal leen fi baal leen yàq baal nañ leen wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أين مني أين منه من اللقاء من اللقاء سنغال أين موضوع أين ميسي من اللقاء من اللقاء سنغال سيدي